bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ridwanullahi taala alakbari an ilabdi alqadim wa an jamici awliya illahi almuqarrabin maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sunu borom di wax bismillahi arrahmani rahim di sant yàlla yàlla mi borom mbindeef yi te sant boppam njëkk kenn di ko sant waxal boppam ne alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi julli di sëlmal ci ki nga xam ne moo gën a tedd ci ñi mbindeef yi gën a tedd ci ñi yàlla yónni ci mbindeef yi te yàlla yónni ko mu nekk yërmaane ñeel mbindeef yi julli googu na law ba ci ay ñoñam ak i mboolem seen di ñaan jaamub yàlla bi tey liggéey yaakoonam tey liggéey yaakoona yonent bi di alhabdul qadim ngërëmal sun borom dotti ko ci kawam ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu waa As-Samadiyya Média nuyób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Sohaybu ak mboolem kilifa yi nekk euh, ci biir As-Samadiyya Média ñi nga xam ne ñooy aalul xadim di nuyu boroom xam-xam yëpp di nuyu ki njëkk a tabbi ba ki mujj a waaye nag di teg nuyoo bi ci loxo yi sëriñ Sàmb mu jot ñu ko mboolem waa daara ji dukkóoran wa inaatan si xaaran wa kibaara waaye di beral nuyoo sëriñ Moustapha Guèye ak sëriñ Cheikh Bara Fall ci sëriñ Moustapha ci njàng mu am solo bi ci xasida gi mu jàng te muy wajaxtu wajaxtu kulli saa xurbin muy xasida gu yéeme mhm. sëñ bi tënkoo ko was sëñ bi tënkee ko was waskurullaha fii ayaamin maadudatin mhm. xam ngeen ne loolu aayab alquran la te am na lu ko bu dee waskurullaha fi ayaamin maadudatin sëriñ bi defar na ci ñetti xasida ci dama xamagul bu njëkk ba moo tàmbale widaadi wa sukuri fi ixtiraabi wa maxfali li muxnin xadaalil xaaja fi ardi baxfali boobu mooy bu njëkk bi bi ci des moom itam sëñ bi tënkee ko waskurullaha fi ayaamin mahduuratin moo tàmbalee ci wajaxtu wàcciya za qurbi min allahi bi jaahi ahmada sa sawqin ila allahi ñetteel ba nag mooy bii ñu bii Serigne Moustapha Gueye jàng jàngin wu neex wu yéeme wii te mooy wajaxtu kulliya daa qurbi min allahi xillan wa hibban wa daa shawqin ila allahi kon ñett yooyu laa ci gisagun mhm. kon wajaxtu kulliyata qurbi min allahi sëriñ bi mi ngi ko way ci bahrul basit ñaar fukki bayit la ñaar fukki bayit la ak juróom mhm. ñaar fukki bayit la ak juróom sëñ bi tënkee ko ci waskurullaha fi ayaamin maadudatin ayaamin maadudatin nag ak seeguñ ca dafa am ayaamun maalumaat am ayaamin maadudaat fi mu toll nii ñi ngi ci ayaamin maalumaat accès guñ ci ayaamin maadudaat fukki fan yu njëkk yi njëkk ci tabaski bu nee taafeer weeri feeñ na tey la benn fanu tabaski ba bisu tabaski loolu mooy ayaamul maalumaat ci langaasu alquran waaye nag buñ tabaskee fukki fan ba ak benn fukki fan ba ak ñaar fukki fan ba ak ñett loolu mooy ayaamu maadudaatin moo tax suñu borom naan waskurullaha fi ayamin mahdudatin waskurullaha fi ayamin mahdudatin faman tahajjala fi yawmi fi yawmayni fala isma alayhi waskurullaha fi ayamin mahdudatin faman tahajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullah suratul baqara aaya ñaar téeméer ak ñett ayyaamul maadudaat mooy fan yi ñuy def mina di sànni jamra mooy ñetti fan yi nga xam ne mooy tegu ci bisu tabaski ñetti fan yooyu nga xam ne nit ñi ñi nga nekk mina ñetti fan yooyu moom la ñu tuddee al ayaamu tashriq nga xam ne ayaamu aklin wa surbin la bu dee nag al ayaamul maalumaat moom ci lañ nekk nii mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski loolu la ibnu abbas radiallahu anhuma wax ñëw na ci xadis bi wér yonente bi ne ayaamu tasriix ayaamu aklin wa sur wa surbin wa dikrin fan yooyu daal bisu bisu lekk la ak naan ak tudd yàlla xadis bi rawaahu muslim ñëw na ci benn xadis mu ne wa ayaamuna salaasa fa man tahajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi loolu Ahmad solo na ko ak kudul moom moo tax ñu wax ne wër moom ajji wër ñi ngi koy def kaaba gi bu dee dox ñi ngi koy dox diggante safa ak marwa bu ko defee nag fan yi ñuy toog mi nag wala mu naa di sànni jamra yi loolu dañ koy def ngir tudd yàlla mhm. wa ramyul jimaari li iqamati dikrillahi hasa wa jalla mhm. kon waskurullaha fi ayamin maadudatin kon ñetti fan yi tege ci bisu tabaski loolu mooy ayyaamul maadudaat kon xasida gi ñetti fan yooyu moo ko tax a bu dee fan yi ñu nekk rek moom ayyaamul maalumaat la tasbih tahmid takbir tahlil ne ko xadis bu waxee yonent sallallahu alayhi wa sallama wax nii nag ne ayyaamun maadudaat mooy ñetti fan yi tege ci tabaski noonu la ko mu mufassiroon yi firee bu dee ay al ayaamul maalumaat mooy fukki fan yii ñëw yi ñu nekk nii weeru taafeer na ba fukki fan tabaski loolu mooy ayaamul maalumaat kon ñu ngi ci ayaamul maalumaat ayaamul maaduda nag agsi guñ ci mi ngi aksi ci buñ tabaskee ba ca suba ga ginnaaw suba ga ginnaaw waataat suba ga mooy fan yi ñuy def jàmm munaa di sànni fan yi ñuy def minaa di sànni jamra fan yi ñuy def minaa di sànni jàmbara ah lu ciy firnde bu ñu demee ci widaadi wa sukkuri fi ixtiraabi wa mahfali li muxnin xadaali al xaaja fi ardi bahfali da nga fekk ca fan ca tarjumaan ju njëkk ja sëriñ tubaa radiyallahu taala anhu di wax ne bismillahi arrahmani arrahim allahumma inni asbaxtu usxiduka fi axiri yawmin min ayaami mina ama xamsata xasara baxda salaasa miatin wa alfin min hijratihi sallallahu taala alayhi wa sallama yow sun boroom man cheikhul xadim xëy naa ci bis bi mujj ci bisu minaa yi ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom xëy naa di seede kon gis nga boobu ci bis bi mujj ci bisu minaa yi ci la ko sëñ bi def nga xam ne kon ay ci bisu ayaamin maadudaat ayaamin maadudaat ci bis boobu ba ci mujj la ko sëñ bi def mhm. kon yaakaar naa loola leer na kon waskurullaha fi ayaamin maadudatin mi ngi noonu bahru basid la ñaar fukki bayit la ak juróom la ko tax a jug nag mooy dikrullah tudd yàlla wéetal yàlla ñaan delloo yàlla njukkal loolu moo ko tax a jug tudd yàlla mm-hmm. tudd yàlla zikrullah loolu ko tax a jóg moo tax nga gis mu ne bismillahi rahmaani rahim allahuma yow buur bi bi xaqi waccillahi taala alkarim maa ngi lay ñaan ci aqi jëmmi yàlla ju tedd ji ju kawe ji maa ngi lay ñaan salli wa sallim na nga julli te salmal tabarkeel ala man ansalta alayhi xawlaka waskur allaha fi ayaamin mahdaad na nga julli salmal barkeel ci ki nga xam ne yaa wàcc ci moom wax ji nga wax ne waskur allaha fi ayaamin mahdaad tudd leen yàlla ci bis yooyu te mooy bisu minaa yi kooku nga wàcc ci moom loolu nag mooy kan Seydina Muhammadin mooy sunu sang Muhammad wa alihi wa sahbihi ak ñoñom kama jaalta hadihi al abyata al maxuusata min al abyati allati qilat qablaha ya sakuru ni nga defee bayit yi ñu jëlee ci naka nga defee bayit yi mu jóge ci bayit yi nga xam ne euh, waxeef na ko lu njëkk yaa sakuur yow yàlla sa sakuur kon xasida gi mi ngi noonu xasida dikru la tudd yàlla la kon xasida gi tudd yàlla moo ko tax a jóg ak wéetal yàlla ak delloo yàlla njukkal sant yàlla moo tax mu ne wajaxtu kulliya jëbal naa sama lépp mhm, sama lépp dama ko jëmale tamay boromuk jege ci yàlla di xarit di soppe am cofeel ci yàlla sama lépp jëmal naa ko yàlla mm-hmm. di xarit di soppe di ko am cofeel ci suñ borom ak sawq la jëfandikoo baatu xib <coughs> ak sawq ku ci ne xam na loolu ay dëgëral la ci cofeel kon léppam jubale na ko ci yàlla doon ko jege yàlla di xarit bi yàlla di yàlla di ko am cofeel ci suñu borom mu tàmbali nag euh, zikar si zikru bi mu tàmbali ko allahu akbar allahu akbaru yàlla allahu akbaru yàlla gën a màgg lépp lu ma doon def te wala su axsa wala arju si wallahi mhm. yaakaaruma ragaluma kudul yàlla yaakaar ak ragal moom yàlla képp rek dong moom laa ko def <laughs> allahu akbar ñëwaat di indi tudd yàlla gi moo tax mu ne dikri sama tudd yàlla wa sukkuri ak delloog njukkal sama borom wa ridwaani ak sama ngërëm wa mahmadati ak sama cantuk hamd li yëpp ñeel na yàlla waaye nag lu ci ne maa ngi koy def ci sama xol ci sama jëmm ci sama xalima allahu akbar sama cant ci xol ci jëmm ci xalima sama delloo yàlla njukkal ci jëmm ci xol ci xalima samay ngërëm ci xol ci jëmm ci xalima samay cant cantu cantuk hamd ci xol ci jëmm ci euh, xalima yi allahu akbar allahu akbar kon yooyu yëpp ci uh, dikrullahi la mu ne nag kulli li rabbi sama lépp ñeel na yàlla képp rekk dong ci lu feeñ ak ci lu nëbb fi sirin wa fi alanin te man duma laaj kenn kenn ku dul yàlla mi annaafi yàlla mi annaafi ajjëriñ moom dong laay ñaan moom dong lay taalal sama loxo mu ne kon gërëm naa yàlla mi aji jariñee yàlla mi aji des gërëm naa ko te maa ngi koy sant ba ajjana ci wax gi may wax alhamdulillah raditu an naafihin baaqin wa askuruhu ilal jinaani bi xawli alhamdulillahi cey cheikhul xadim cey cheikhul xadim allahu akbar ma ngay def nag naa ñëw ci baytu sant yi naa ñëw ci baytu tudd yàlla yi ba noppi hmm, baytu zikar yi allahu akbar allahu akbaru min aqdi wa min amali yàlla gën a màgg sama pas pas ak sama jëf ak ci samay wax kon fa kulli taaba lillahi sama lépp tey na lillahi ñeel yàlla allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo tax bayit bi tamit ci dikru bi la bokk faasat xilaami bi dikrillahi mustamanin wa faasa kulliya fi daarayni wallahi faasat texee na xilaami samay xalima bi dikrillahi ci tudd yàlla mooy xasiday zikar yi sama xalima texee nañ ci tudd yàlla diirub jamono moo tax sama lépp texe na ci ñaari kër yi te wallahi li ma wax mu am la ko waat moo tax sëñ bi ay xalimaam sëriñ Tuubaa ay xalimaam mhm, faazat moo ci ne faazat day firi texe na waaye faasat amaat na beneen firi yàlla téeméeri téeméeri téere ak ñeent la wàcce xadun jàng nañ ko ci sawru saxaar jàng nañ ko ci sawru subaan téeméeri téere ak ñeent la wàcc Mhm. kenn ku ne yonent yi kenn ku ne lam ci la jox sëñ bi wax ne ko cat sawdu si xaar cat sawdu subaan téeméer ya ñam ko jox mu des ñeent ya ñeent yi nag ñooy faasat gi mooy furqaan kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ko jox li yakuna lil aalamina nasira alif gi alifuk faadat mooy injiil ñu ngi ko joxoon yonent yàlla isa alayhi salaam zaay gi zaay gi mooy zabuur ñu joxoon ko yonent yàlla daawud ta tomb gi mooy tawreet ñu wàcce woon ko ceeb Muusa day mel ne téeméeri téeméeri téeméeri téer yëpp bi ñeenti téer yi mooy seen synthèse waaye ñeenti ñetti téeri yëpp muy tawreet injil saboor alquran mooy seen synthèse moo tax alquran mboolem cent quatre téer yëpp mi cent trois téer yëpp mi ngi ci biir folli na yëpp te beneen du ko kol folli kitaabuhu kullu na nataqaa wa innahu bi xayrihi la yumsaqaa la cheikhul xadim wax mhm. kon ndeke mbootum furxaan tawreet injil zabuur loola la sun borom dëxëñ ci xalimay sëriñ tubaa moo tax faasat xilaami bi dikrillahi sama xalimay taxe nañ te ci dikrullah waaye sama xalima yii secret Qur'an injil saboor sawreet mi ngi sama biir xalima kon mi ngi noonu kon xasida gi xasida sukkuru la xasida dikru la xasida tawhiid la waaye xoolaatal li sëñ bi wax an malikin naafihin barin raditu bila suxtin waxan xaidi lillahi billahi daa li sukurin daa li dikrin wa sukurin junnati karamu mi man bihi saara kulli taata taatallahi nee na daal daa li dikrin wa sukrin jussati mhm. jussati karam mi man bihi saara kuli lillahi taati lillahi li ma puuse daal di tudd yàlla di sant yàlla teraangay ki nga xam ne mm, sama lépp ci moom la la nekkee di ak topp yàlla allahu akbar mhm. wajaxtu kulliya liman yuxni bila sababin sama lépp jëmal naa ko yàlla yàlla mi xam ne euh, mooy doylu walif lor ci lul ay sabab raadiyan xantil wara laahi may aji gërëm borom bi ndeef yi te mooy allah axtaani allahu dikran min ladunu waxat qabiltuhu minhu za qurbin min allahi yàlla jox na ma dikra muy alquran ji jóge ci moom nangu naa ko may borom ak ci yàlla kon xasiida ji dikrullahi la xasida tudd yàlla la moo tax képp ku nekk mina ñetti fan yooyu ñu sànni jamra xasida yii yor ko di ko fa jàng yaa nga tudd yàlla tudd yàlla ga gën a màgg yaa ngay tudd yàlla tudd yàlla ga gën a màgg yow mi ajuwul màkka ñetti fan yooyu jëlal waskurullah fi ayaamin maadudatin xasida yooyu di ko jàng beneen waskurullah bi am na ci bayit boo xam ne ni boo ko dee jàng da am yoolub ko xaj màkka kon lii mooy dikrullahi bi na ñëw nag ci sukrullahi bam ne dikri wa sukuri wa ridwaani wa mahmadati la tudd sukura ga muy delloo yàlla njukkal ga raditu hanna fihin baaxin wa askuruhu ilal jinaani bi xawli alhamdulillahi gërëm naa yàlla mi aji jariñe yàlla mi aji des te maa ngi koy sant mhm. te maa ngi koy sant da ko def fi'lu mudaari ad dallatu ala dawaami wal istimraar waxtu wu ne jamono ju ne saa ba keroog ñuy dugg àjjana damay dello yàlla njukkal dama koy cant cantug jëf ci wax boole koog di wax alhamdulillah kon cantug sukuru ak cantug xamdu lépp sëñ bi indi na ko ci waskurullaha fi ayamin maaduratin dikri wa sukuri wa mahmadati sukuri mooy cantuk sukuri gi mahmadati gi mooy cantuk alhamdulillahi gi allahu akbar lahu sukuri wa hamdi raadiyan wa lahu kulliyati sarmadan fal xalqu lillahi lahu ñeel na moom yàlla bu ko neexee mën a sukuri lahu waaye lahu yàlla képp rek dongo la samay cant ñeel cantuk euh, jëf waxamdi ak cantuk làmmiñ cantuk sukkur ak cantuk xamd lépp ñeel na sun borom képp rek dong raadiyan may aji gërëm ko moom yàlla wala hu kulliyati sama lépp ñeel na yàlla sarmadan ba fawwu fal xalqu lillahi mi def yëpp yàllaa leen moom créature yëpp yàllaa leen moom kon ci biir xasiid ak fi ayaamin mahduuratin wajaxtu kulliya daa qurbi min allahi sëñ bi da ciy cant cantuk sukuru da cantu cantu cantuk xamd waaye da ciy gërëm sun borom moo tax mu ne dikri wa sukuri wa ridwaani wa mahmadati allahu akbar faasat xilaami bi dikrillahi mussamanin loolu sëñ bi da koy wax min baabi tahaddusu bi nihmati di sant xéewal yu ko sun borom jox moo tax mu naan yaquudu lillahu fi daarini mutadiyan ani muraadi fawqal xawdal baasitillaahi yàlla daf may wa motal ci ñaari kër yi sama sama sama sama xëy sama sama nammeel li ma bëgg yëpp yàlla ma koy jox boole ko gërëm ma nag yàlla mi nga xam ne mooy albaasit mhm. allahu akbar afnaa xulaatiya bila tawjihim abadan ilaa jihaati daa ajri ladallahi loolu da koy wax di sant xéwali ko sun borom defal nee na suñu borom jeexal na ñi ma bañ ñëpp sama ñi ma bañ ñëpp suñu borom jeexal na leen te ñoom dootuñu jublu ba faaw ci sama wet ba noppi boole xoog nag daa ajirin la dallaahi may ma nekk borom ak yool ay tiyaaba borom ak tiyaaba yool fa suñu borom allahu akbar kon yaddi waxal bi lahu samay loxo sama loxo sama xol ñeel na suñu borom abdan lahu ma nekk ab jaamam biridan ci ngërëm jaamam bu koy gërëm waaye daa xidmatin li rasulillahi ma nekk jaamam boo xam ne day liggéeyal yonta bi yàlla bi billahi uhuh. waxoon na fee wallahi indiwaat na billahi uhuh. kon gis nga euh, loolu yëpp sëñ bi da wax min baabi tahaddusi bi mu ne madattu lillahi rabbil alamin yadi tàllal naa sama loxo jëmale ko ci yàlla mi borom mi ndeefi wa maddali yàlla tàllal ma min mu tukkee ci moom fadlal waasihillaahi ngëneelu yàlla may aji yaatu moo tax an malikin naafihin barin raditu bila suxtin man daal gërëm na yàlla may buur yàlla may aji e, jariñe yàlla may aji baax ngërëm naa ko ngërëm lu ànd ak sànjaaf ngërëm naa ko ngërëm gu ànd ak mer moo xam mer topp waaye gërëm naa ki nga xam ne mooy sama gidd mooy ki may wamat jëme ci yàlla billahi hmm. daa li dikrin wa sukkurin jutati ba tey kon gis nga sukkur gi euh, ñëwaat na kon tudd yàlla gaa ngi noonu sant yàlla gaa ngi noonu mu des nag tawxiid ji weetal sun borom gi xasiida gi dafa fees dell ak weetal sun borom bi yaakaaruma te ragaluma kenn ku dul yàlla loolu tawhid ju mat sëkk la ndax ki gëm yàlla gëm yàlla gu mat sëkk mooy àgg ci du yaakaar ku dul waaye du ragal kenn ku dul yàlla mhm. waaye wax gi wax ne sama lépp jox naa ko sama borom ci lu feeñ ak ci lu nëbb te moom dong laay ñaan loola tawhid ju mat sëkk la mhm. allahu akbar min xaqidi wa wa min maqaali fa kulli taaba lillahi moom itam tawhid ju mat sëkk la waaye nag fa mu gën a indi taw ji tawhid ji nag mooy lahul wujudul la si xat saanahu qidamun kon lahul wujudul la si xat saanahu qidamun wa huwa qadimun maa lahu bidaaya yàlla mooy njëkk lépp amam gi amam yàlla gi mooy njëkk lépp te amul fu mu tàmbalee tayit osoo baqaa in maa lahu nihaaya yàlla moo mujj ta mujjam googu amul fu mu yem te lu dul yàlla yàllaa la moom wa xayrullahi lillahi kon xam nga tawxiid ju mat sëkk nga foofu indi na fa amuk suñu borom gi indi fa njëkkuk suñu borom gi indi fa mujjuk suñu borom gi moo tax tawxiid ju mat sëkk la mm-hmm. moo tax tawxiid ju mat sëkk la kon tawxiid ju mat sëkk mi ngi foofu ci xasiida gi kon xasiida gi xasiida tudd yàlla la xasiid ak delloo yàlla njukkal la xasiid ak gërëm yàlla la xasiid ak cant yàlla ci alhamdu kon dikri wa sukri wa ridwaani wa mahmadati mooy mat moonu xasiida gi te yëpp nag sëñ bi dafay def bil xalbi wal jismi wal aqlaami yàllaahu lillahi ca xolam ca jëmmam ca ay xalimaam allahu akbar kon xasiida gi mi ngi noonu mu ci ne moom ku jege yàlla la xaritub yàlla la soppeb yàlla la ku am ak cofeel ca sunu borom la ma ngay delloo yàlla njukkal di tudd xewal yi mu ko def ne waxaaniyat durra takriman yàlla fegal na ma lor te lool nag ci teraangaam la ak ci baaxeem wa wajjahali nafhan bila kulafin moo tax jëmale ma njariñ njariñ lu ànd ak benn coona moo tax fa sukkuru lillahi kon ak cant ñeel na yàlla képp rek dong cantuk sukkuru allahu akbar kon dafay def cant ci tudd xéewal yi ko suñu borom defal yàlla dàq na lor mu dem ci keneen ku man mu dem ci keneen euh, lu dul la mataanal allahu akbar hmm. huwa alkarimu lati lin xaada doona xanaa maxtari li indahu fal amru lillah yàlla mooy aji tedd ji nga xam ne euh, la mataanal wamatu na ñëw ci man ci lu ànd ak coona Ah, la ma taañal fa moom kon gis nga xasida gi mi ngi noonu xasida ak tawhid la bam ne lahul wujudul la si xat saanahu qidamin xat saanahu qidamun maxal baqaayi wa xayrullahi lillahi lu dul yàlla yàlla la moom loolu xam ngeen ne cant xam ngeen ne tawhid gu ma sëkk la wala su axsa wala arja wala arjo si wallahi yaakaaruma ragaluma kurul yàlla loolu tawhid ju ma sëkk la waaye wa xayrullahi lillahi lu dul yàlla yàllaa la moom loola tawxiid la fal xalqu lillahi mbindeef yëpp yàllaa la moom yàllaa leen moom fal amru lillahi wax na ko ci mbir ko ci topp dane lahu sukuuri wa hamdi raadiyan wa lahu kulliyati sarmadan fal xalqu lillahi bayt bi ci topp mu ne huwa alkarimu alladi lin xaada doona ana maxtira li indahu fal amru lillahi gis nga fii ñaari bayt yi sëñ bi la cee dëxañ alaa lahul xalqu wal amru allahu akbar alaa lahul xalqu wal amru kon mbir yëpp ak mbindeef yëpp yàllaa leen moom tawhid ju mat sëkk la allahu akbar tawhid ju mat sëkk la léegi nag kon xasiida gi leer na tudd yàlla sant yàlla wéetal yàlla gërëm yàlla sant yàlla ci cantuk xamdu loolu moo tax jug xasiida gi waaye nag xam ngeen ne sëriñ bi moom euh, day dox ci diggante al abdul xadim day dox ci diggante yàlla ak yorante bi moo tax xasida gi yorante bi am na ci cër moo tax mu ne yaddi wa xalbi lahu abdan lahu bi radan daa xidmatin li rasulillahi billahi xasida gi tamit loolu la rek moo tax mu ñëw ci yonte bi ne yaa rabbi salli wa sallim sarmadan karaman ala wasilati al usma adallahi yow saa borom na nga julli sërmal ba ci sama wasila bu mag ba fa yow Mm-hmm. aska salaatin bi taslimin bila hadarin gën ngaa selli julli ànd ak sëlmal ci lu amul lim yàlla nekk ala nabi rasulil abdulillahi mu indi fa ñetti turu yonent bi an nabi ak ar rasul ak al abdu mm-hmm. subhaana allazi asra bi abdihi layla fa awha ila abdihi ma awha tabaraka allazi nasara al furqaana ala abdihi muy tur wu neex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha nabiyu yaa ayyuha rasul dañ ko dégg kon ñetti tur yooyu indi na ko waaye nag bi mu waxee lii ba noppi nag mu ne mu tagg yonent bi ci tagg bu mat sëkk muhammadin xayri man xaabu wa man hadaru kii may wax te mooy al abdu te mooy annabi te mooy ar rasul kooku mooy muhammad muhammad man mu ne xayri man xaabu mboolem ñi fàddu ñëpp ñi ñëw ba weesu ñoom ñëpp moo leen gën waaye man xadaroo ñi teew ñëpp moo leen kon nag ñi ñëwagul ñoom <laughs> jëruñoo wax kon ña faddu ak teew ak ña ñëwagul ñëpp bi moo moo ci gën kon julli googu nag na nekk ci moom ak ñi ñam ak saaba bi nga xam ne ñooy xisbil malikillah allahu akbar mhm. kon gis nga tàgg na fi yonent bi waaye julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama mm. ginnaaw ba mu tuddee yàlla sant yàlla cantuk sukuru cant yàlla cantuk xamdu gërëm yàlla tàgg na ci yonent bi ci xasida yi wajaxtu kulliya julli fi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon xasida gu fees dell la waaye nag def na ci déclaration bu am solo def na ci déclaration bi am solo te dane diini ilal jannati al islaamu wa huwa ala diinun siwaahu wa saa nasrun min allahi mhm. nee na sama diine man Sëñ Tuubaa sama diine ba kar àjjana mooy lislaam te inna diina inda allahi al islaamu diine fa yàlla mooy lislaam moo tax mu ne wa saa nasrun min allahi lii teg la ab yax la boo xam dafa jóge ci yàlla yàlla wax ko ci alxuraan inna diina inda allahi al islaamu wa man yabtaqi xayra al islaama diina falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirina ku sàkku jeneen diina jurul diina islaam yàlla du ko nangu te da nga bokk ca ñooy perte ëllëg quiconque cherche une autre religion que l'islam il ne sera pas agréé par Dieu et il sera au-delà parmi les parmi les perdants allahu akbar inna diina inda allahi l'islam wa man yaq wa man yabtaxi xayra islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l-axirati min al-xaasiriin déclaration bu am solo la sëñ Tuubaa nee na l'islam mooy diineem te l'islam mooy diine ji nga xam ne kawe na not na bépp diine budul moom te lii texte la boo xam ne alquran moo ko wax wa saa nasrun min allahi mooy inna diina inda llaahi islaam kon gis ngeen xasida gi xasida gu fees dell la taslimu baaxin ala xayri wara wa ala xisbin lahu wa ala al mustaaqi lillahi allahu akbar muccuk sun borom yàlla nekk ci gën gi mineef ba tey tagaat la gën gi mineef waaye mucc googu sëlmal googu na nekk ci kuléram gi wa ala al mustaaqi allahu akbar moom nag ci mustaaqi la bokk ña sopp yonent bi ba jeex takk takk takk sëñ Tuubaa boo demee ca téere sëñ Sili bi nee am na bis mu nekk ci biir géej gi bëgg yonent bi bëgg yonent bi ba caf ko suukar safatu ko ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku kon ci mustaax la bokk nga xam ne ñoom mooy ñi yonent bi doon juñ ci hadiis ba seen alal seen doom seen lépp mën nañ koo joxe ngir gis ma <laughs> Hmm. moo tax sëñ Tuubaa wax leer na jotee na yonent bi waa këram deretu boppam ak njabootam hmm. bëgg yonent bi tax na bëggatul doom bëggatul waa kër bëgg bëggatul alal bëgg bëggatul dara bëgg yonent bi bëgg yonent bi ba say tàkk tàkk ci yonent bi hmm. moo tax am na ñett yooyu kenn fekk fa sëñ Tuubaa te yaakaar naa ne sama xam-xam nag dafa bariwul sama aliwo guddul waaye gis naa sëñ Tuubaa wax ñett yoo xam ne ci moom laa ko gisagul néew ma nag amul keneen ku ko wax ndax sama xam-xam guddul sama tànk sama sama sama sama sama tànk guddul waaye am na ñett yooyu yàlla sëñ Tuubaa wax na ko ñetti ñett sëñ Tuubaa nee maay xaritu yàlla di soppeb yàlla <laughs> allahu akbar maay xaritu yonent bi di soppeb yonent bi maay xaritu alquran di soppeb alquran ñett yi daal moom ah sëñ Tuubaa wax na ko de xaw ma ndax am na kenn ko wax allahu akbar ah moo tax kenn du sëñ Tuubaa ah bu doon giiroo bu doon giir nga xaritoog yàlla di soppeb yàlla xaritoog yonent bi di soppeb yonent bi xaritoog alquran di soppeb ah ñett yi ko jël nag moom jël nga lépp allahu akbar kon taslimu baaxin ala xayri wara wa ala xisbin lahu wa ala almustaaqi lillahi kon maa ngi dog ngant di jéggulu dama doon feeñal yéen rek xam-xam bi matiwu ko fasaa làmmiñ bi matiwu ko waaye nag bëgg gi moom mi ngi fi bëgg gi mi ngi fi bëgg gaan fi de kon nag maa ngi doon ngant di jégalu la kon xasida ak waskurullah gii yëpp dañ koy jàng ci fanu minan yi képp koo xam ne yaa nga penku xasida gi am ko fan ya ngay nekk mina boo sànni say jamra ba noppi nekkal ci xasida gi bu xarafa bu bisub arafa jëlal yow ma xarafata balsasin wala xasida yi sëñ bi tënkee arafa allahu akbar ak xasida yi mu tënkee laa ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulk wala alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun bayit wii ne ku koy wax yàlla dana la jox yoolub aj màkka ku am ku am ku am ku am ngànt bu noo dem màkka booy wax daawtuka al yawma fi l ayaami murtajiyan sawaaba man xajja bayta rasiqillahi yàlla jox la yoolub aj màkka wax naa ko maa ngi koy waxaat aj màkka moom barab lañ koy defee muy màkka mina xarafa waxtu lañ koy def mooy waxtu yii mhm. waaye nag yool ba sun borom dana ko joxe ci coobareem ci ngëneelam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci xadis bu ne képp ku umra weeru koor sa umra googu dañu ci bindal yoolub aj loolu nag baaxaay ak suñu borom la ak nga ne la moo tax daawtuka al yawma fil ayaami murtajiyan sawaaba man xajja baytir raasiqillaahi képp ko amul yóbbal bu mu demee màkka nay wax bayit yi tey jàng xasida yi kon maa ngi doon ngant di jéglu wa axiru daawaana anni alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh